gërëm monsieur le ministre de l'éducation nationale ci liñ fi gis tay liñ fi gis tay mbégte bu reuy la ci ñun parce que gis nañ fi lo xamante tay dina tax sénégalais bu ne fépp fu mu ne ci Sénégal mëna euh, jot ci éducation mëna jot ci njàng mi loolu dafa li lo xamante euh yenn gox yi rek ñoko doon am fii ci Sénégal yenn gox yu melni Dakar yu melni Thiès waye ak liñ fi gis tay dina tax ba sénégalais bu ne fépp mu mën a ne ci dëkk ci ci réew mi mën jot mën jang nim ko bëggee parce que euh liko waral moy euh, application yu xalé yi nekk fi ci ministère de l'éducation nationale développé application yooyu dinañu tax ba ministère bi mën a gën njàng mi gëna démé gëna jëm kanam aussi njàng mi gëna a produire résultat yu ñuy xar ci moom ARTP dina continuer nim ko daan defé di accompagner éducation nationale dina ko gëna def parce que euh, éducation mom moy socle développement xale yi réew mi ñoom ñoo yor avenir u réew mi donc ARTP ci lolu lay bindu te ARTP incha allah dina mëna dina gungé dina accompagner éducation nationale dans le cadre de la révolution numérique qui est en train de se faire. comme ni ma ko sank rek man dama fi ñëw représenter directeur général Sonatel monsieur Sekou Dramé parce que l'agenda agenda permettre ko Nous l'autre fii lu tax nous fi parce que ministre bi nous ba vision de dafa parce que digitaliser l'enseignement permet à tous les acteurs en tout cas d'avoir accès aux ressources à la connaissance et à savoir de manière très facile dafa nekk loo xamante ne dafa bokk ak gis-gis donc si suñu ñëw fi tey dafay que, nous accompagnons l'État du Sénégal en particulier le ministre bi dafa correspondre effectivement à la vision aujourd'hui Flyboxing, nous yi que box pro Nous ñu war a ci école yi ñun fourni fournir le ministère bi accompagner avec 20 gigas sur les réseaux 3G et 4G donc ce qui wax ni tey c'est le commencement Nous, avons ci ministre accompagner sur tous les projets pour toujours permettre effectivement comme nous ko parents de enseignants et tous les administratifs ont accès à la connaissance et à la ressource très facilement